asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi rawatina waa Xaddimi TV ñi nga xam ne ñooy topp suñu télé bi di béggee émission yi ak yi nga xam ne moo fi jàll yëpp rek tey day mel ne am na particularité boo xam ne am na ci bisub tey bi di fanweeri fan ci weeru muharram atum junne ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom ci ati gàddaay gi waaye nag war a tolloog le 17 août 2023 sëñ Mbacke Thioune feggool ni suñu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk ñi nga xam ne ñoo suivre alxadimiya yëpp rek di la nuyu tey si bis bi comme ni nga ko waxee rek fanweeri fan si weeru safar waaye toll ko fukki fan ak juróom-ñaar si weeru ut di dëppoo nag bis bi nga xam ne ni mu ko waxee sànq rek muy bisu ziar boo xam ne ku ne xam ne ziar ak murid daal incha allah. Mbegere léegi bi mu mënee euh, demal léegi nga jël réaction jëriñ ji. Eh, bi ma waxee ne ma Ibrahima demal loolu waajaatuma ko sax fa saasa rek damaa buur ñëw na xam ne li ma fi bëgg a dégg man war koo taataan loolu mbég rek la war a doon bisub tey bii eh, lan la def ci seen jëmm yi lan la def ci xol yi lan la def ci ruu yi loolu ci mën a indil. Eh, sant nañ bu baax a baax li mu def ci ruu yi ak xol yi moom foo ko natt rek weesu na ko ndax bisub ziar la ñëpp di wax waaye ñun si suñu biir bisub sukkur lañ ko tuddee ak cant. cant gi nag dañ koy sant sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa mi nga xam ne moo fi nekk nekk fi sëñ Tuubaa suñu digganteek moom ni ko murit yëpp defee moom julit yëpp war koo def sa sant ndax taxawaayam si lislaam waaye ñun jàpp nañu daal ñëpp santee benn ñun war nañu sant fukk suñu digganteek moom loolu tax tuddee ko ziar waaye ak ko tuddee ngi yëg nañ yiir gum ñu yiir taxaw gum ñu taxaw ak jàppale gum ñu jàppale zahiran baatinan ba lii taxaw nii mu taxawee lépp sëñ Muntaxaa la rek kon bisu sukkur la rek bisu sukkur nag ku ne xam ne moom euh, màggal Touba li muy rey rey rëy sëñ Touba sukkur la la woote sukkur nag du doon ay wax waaye jëf la rek ndax imalu alu daawuda lam su teg mooy sukkuran kon yaakaar naa loolu la sukkur nag ko wax nag ku ne xam ne dugg na ci lépp la in shakatum la azidannakum moo si topp kon ku ne xam ne ne moom ruu yi dund na xol yi dund na maanaam dañuy delloo suñu bopp si sëñ Touba noo xam ne daanaka nañuy yeg suñu xol lépp sax duñ ko mën a wax ngir tawfeex gi nga xam ne am nañ ko muy muy muy lii nga xam lépp sëñ Touba rek nag du kenn sunu sëñ Mbacke dafa am loo xam ne bu xewee ci jamono muy jamono joo xam ne bu ñuy wax loolu nag c'est mondial xëccoo pas-pas xëccoo diine giiroo ci dara xëccoo aw yiw yu bare bari di jaxasoo di gëndaloo waaye constance boo xam ne aw mbooloo dañ koy am am dévouement boo xam ne corps am âme lañ koy defee jiite jafe na waaye saa boo jiitew gestu gis mbooloo sa ginnaaw ñu takkutoo doon wenn say di la di la taataan seenub nopp loolu moom ku mu seddul sa xol xaw ma lan ma war a sedd xol loolu loo ci war a wax ci mobilisation bi gars yi ànd ak yow. waaw loolu daal moom mooy li ma waxoon sànq rek euh, Daara Hizbut-Tarqiyyah Daara Khoudoss ñooy mbokk di sant waaye may demee lu leen sant ñoom ci ni nga ko waxee sànq rek ndax li fi jaar àddina ni nga xam ne moom la tëradee mais teewul pas-pas yi mel noo xam ne rek foo ko natt rek weesu na ko si ñoo xam ne moom jaral na leen rey seen bopp ngir ngir yow jaral rey seen bopp ngir liggéey bi dox. jaral na leen sacrifice seen bopp ngir li koy dox loolu pas-pas rek mooy li xaandiku gi waaye boo ko seete boo delluwaat si lislaam yu saari xoon fil xayraat rek boobu mooy li xam ne moo nekk si mbokk taalibe kenn ku nekk lu sa morom def su lu nga yéene ko ko ba mu mat sëkk ñaan sëñ tubaab fay ko ko waaye nga fas yéene def loo xam ne lu ko la kon rivalité d'ardeur boobu rek mooy li moo indi lii lépp kon ñi ngi sant mbokk taalibe yëpp seen taxawaay seen seen seen seen seen ak seen sacrifice bi nga xam ne def nañ ko ba bis bi mel nii mu mel taxawee nii nga xam ne moom la taxawee loolu yàlla ak ñoom la daal ñu ngi sant nag daje sëñ Tuubaa defal leen kaw njort bi ma koy laaj bi ma koy tëjee sëñ Mbàkke mooy jëm xare di tiire say bal loolu ku ne xam ne ne am nga cartouche yu doy suba la benn panub safar ëmbaale bis bu rëy bi muy fukki fan ak juróom-ñett war a toll xaru ci yow ma sabti samina enchère ba ci mujj ga loolu yëg-yëg bi nga ci am mooy jëm xare ba noppi di tiire say bal loolu moom wóolu say cartouche lay tekki waaw loolu rek mooy li nga xam ne mooy li mu doon wax sànq bokk taale bi daa mel ne bi ñu doon waxtaan sànq euh, da nga ko fekke woon léeg-léeg ñu posé ma lu mel noon sax si yenn si mbokk taale bi jëw riñ ñu ngi dem ci màggal daanaka moins de 15 jours la ñu bëgg fee def li ñu xam ne moom la ñu war a def lépp si sacrifice daanaka est-ce que duñu def lenn li si des ñu jéewal ko màggal waaye donc la leen doon tontu rek laa lay tontu tey moo bis bi ñu ñoo ko woote suñu bisu bopp la fas yéene sant Sëñ Tuubaa waaye màggal nag bisub sëñ Tuubaa la ci boppam moo ko doon sant le boppam di ko sant di sant ba sant mënatu ko moo tax mu soog a woote moo ko yoral boppam bii nag ñun suñu bis la ñoo ko wootal sëñ Tuubaa di ko defal sëñ bi bisu sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa si moom moo ko yoral boppam mu neex ñu mu naqari ñu wóor nañu billaahi lazi laa ilaaha illaa de kawe njort waaw ñaari kàddu ci sëñ Muntaxa rek ñu wàccee ko jotaay bi ndax day mel ne jamono jii ñu toll sëñ Muntaxa ni mu jiite yoonu murit ni mu leen yiiree ci transparence ak njub ak dévouement ak jom ak ngor ak fit ku ne xamne ne bu jamono ji amutoon seigne muntaha gaay yi diine yëpp danañ li jeenti ji fum nek ñu buru wutali ko ngir mom rek mom mo atane yan bi fi ni tembe loolu mom lu wér la yan te seigne Tuubaa def dara si hasard kenn ku nek jamono bi ngay rek lay indi lo xamne mi ngi melni comme karama yi xamne mo da am ci yonent yi rek jamono ñabar bu amé day ñu yonent bo xamne ne indi lo xamne kenn ku man loolu amul jamono médecine bu amé mu indi ko xamne lam ci def kenn ku mel nonu amu ci jamono ji nak lim la seigne muntaha rek la la jox ci qualité ci ci ci fànn yëpp matale loo xam ne moom wax waxuma muridi waaye moom laa introduire mboolem umma islamique yëpp au delà de umma islamique mi sax le monde entier ñoo ko war a sant gërëm ko si taxawaay bi nga moom la taxaw mu doon loo xam ne référence la si fànn yëpp doon loo xam ne mooy la solution de tous les maux maanaam jàngoro yi nga xam ne àddina yëpp am na ko moom sëñ Mountakha mooy solution te jëfe na jëfe koo xam ne kawe na njort yëpp